Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en renouvelée, merci de vous liker, merci de vous abonner. Merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé les gars. Et chaque fois de partager une information, Box Sénégalais fait pour les matinées 14 régions du Sénégal à nouveau World Cup, nous avons déjà ñu nekk également ci lal yi ci kër yi tëdd yalla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm ñu nekk ci kasso yi nga xamné erreur judiciaire ak yéen ñu defa moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i ñi dëddu aduna suñu borom xalé leen aduna fi daw ci gars yi te on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité en continu gars actualité bi lay waxtaanee ak d'abord ki nga xamné moy Seria Saliha mi nga xamné mom moom jox na anecdote ci li nga xamné moy nan lañ def ba recruter Sadio Kaiser Magnifique Mané euh, ki di Karim Benzema Benzema donc élu but de l'année ak aussi Sénégal Bolivie japp nañ date bi également loolu nañ cëpp wax ci indi ci ay leral mi également jëm gars ci football local phase nationale yi ah. donc tay lay tàmbale 8e ah, de finale yi donc Jam bugum la ak jamono donc bu Louga ak jàmm bu dum de euh, bugum plutôt bu Fatick dëkkandoo ak guy gi ñoo ak alliance AT ak santé sou gars lay euh, également Garmi bu fatik ak Ufrazel bu kaolak Cité Lamy Thiès ak gelewar bu Dakar Lébu gi ak Ersan Jongul euh, bu refusque ak Jalooré bu ties gars ñom ñoy dajé ci de finale

continuer avec équipe de France bi ni gannaaw bi nga xam mom gis nga leena ah, pour la première fois dem ni quart de finale coupe d'Europe nana équipe bu am ay valeur la te gëm na ne mën nañ gën sori donc elle veut continuer avec euh, cette équipe qui dina Karim Benzema Benzema wax na len ko gars mom lañ euh, plus beau but euh, de l'année par rapport à la Ligue des Champions bi bi nak moy premier but bi mu dugaloon contre Chelsea si sen jogante yi une magnifique combinaison donc au parti du milieu de terrain donc il était au départ de l'action mouda qui di finit ci finition c'est un un centre de King nga donc qui di Vinicius Junior l'état daal di tromper tromper plutôt la vigilance de King nga Edouard mur Mendy donc qui dit Karim Benzema Benzema le plus beau but de l'année UEFA li nga également un joueur de l'année également UEFA qui dit Karim Benzema ak euh, Thibaut Courtois à Kevin De Bruyne nominé Karim Benzema grandissime favori cette année année donc il va tout rafler ki nga xam ne Karim Benzema donc l'attaquant français welcome to Lecce ki nga xam ne Samuel Umtiti waxoon naa leen donc Samuel Umtiti est arrivé du côté de Lecce donc fi ngeen gis ko mi hein. donc en tout cas saison bi donc fallait jouer fa lañ leen ko all. donc aujourd'hui donc il va jouer du côté de l'Italie pour relancer sa carrière Marco Asensio nag fi ni ne Manchester United mon lañ def priorité pour daal koy recruter mais nag nee nañ ki nga xam Ancelotti fay compter ci joueur bi joueur bi également dafa bëgg am temps de jeu parce que dafa bëgg am coupe du dem coupe du monde motax tax ñu japp ne il y a des possibilités mu dem du côté de United ki nga xam ne nag également mooy Casemiro waxon naa ne ko gars yi tey premier entraînement am ngeen gis ko ni hein premier entraînement bu Casemiro le milieu de terrain brésilien bi nga xam nak nag donc dafa jógee Real à la surprise générale d'aller du côté de l'Angleterre notamment du club mancunien du côté des Blues de Chelsea ki nga xam ne nag mooy donc Wesley Fofana match samedi bi contre Leicester Chelsea mon du ci bokk parce que moom nee dafa bëgg dem coûte que coûte kii di Ebe Aubameyang nag gars yi fii ak ëllëg wala semaine bi euh, d'un conclure li nga xam ne dem du côté du euh, de Chelsea 25 millions d'euros la ñuy wax ki nga xam ne également nag mooy Serge Aurier le capitaine emblématique euh, des éléphants de la Côte d'Ivoire mon gannaaw ba mu jógee Villarreal mon club fi mu day dem du côté de Nottingham Forest fekk si ñoom Cheikhou Kouyaté entre autres une euh, contrat une année la daal di signé Nottingham Forest bi nga xam également ils ont euh, ciblé ki nga xam ne mooy Touré ak euh, Sidibé ki nga xam également moy Benjamin Pavard hein, le joueur défenseur donc de Bayern de Munich moom Manchester United né nañ dem jëm nañu essayé pour jënd ko boy mo bañ ne Bayern la bëgg tok motax daadul dem ki nga xamné également moy Keylor Navas gars yi nañ ba mo Paris Saint-Germain dinañ am accord pour rupture de contrat donc ñom ñaar ñu daal di waxtaan ne ñu romp seen contrat Paris Saint-Germain fay ko diggante 7 ba 8 millions par muy ben salaire atam lol dal pour mën ko permettre mu dem signer fa nga xam moy donc du côté de Napoli minimum pour deux ans Sénégal Bolivie gars c'est maintenu donc Australie lay am le 24 septembre donc lay am diggante Bolivie ak Sénégal gars yi nag nga nan lutax donc match yi ñu bëgg jouer ñaari match du côté de Australie moy que né comme quoi, ay match amical la par rapport règle FIFA bi wax moy surtout ci préparation bi moy que né ci circonférence si bon alentour même zone bi donc ngeen ko mëna jouer ñaari match donc mi Sénégal day jouer le 24. Euh, Australie Autriche plutôt donc le 27 mesure également Autriche contre équipe également donc Iran donc Sénégal. Euh, attire d'abord Bolivie avec Sénégal, Iran. Mingini Moussa Ndiaye, il est arrivé du côté de Anderlecht. Il a signé un contrat de 3 ans. Le joueur sénégalais, donc passé par la Masia, donc du FC Barcelone en Barça B, signé un contrat du côté de Anderlecht pour lancer carrière professionnelle définitivement. Qui a également Moumou de Hassan Sadia Medzik, Moumnak Warnachi du côté du Bayern Munich. wax na benn anecdote nee na ba mu dajee ki nga xam ne mooy Sadio Mané ba mu ko woowee téléphone plutôt daf ko woo wax ko waxu a marqué mooy Sadio boo xam ne Sadio Mané di di wax na ci wàllum li nga xam ne wàllum koppar wala jiital na wàllum xaalis ne ko non lii ngeen may fay dafa dafa excité ah, ne dafa il était très excité ba ko Sadio ne damay ñëw parce que nee na ko woon donc moo tax automatiquement xamoon nañu boobu noonu dinañ juboo que nee Sadio Mané c'est un joueur à part c'est un excellent joueur et que joueur bo xamné tay tey jii mi ngi leen koy rendre pour l'instant ci terrain bi dañuy ñaan mu continuer mu continuer et que ñom nee choix bi ñu def ci Sadio Mané c'est un choix bo xamné ne nee du choix par défaut soit bo xamné dañu tok dañoo waxtaan ci en interne xamné instant yi ni donc Sadio Mané mom nek na joueur bo xamné mom moñu mom ñu soxla liñu bëgg jouer profil de joueur ñu am c'est un joueur bo xamné on on dort et sur le terrain daf nekk joueur bo xamné il est exceptionnel laf cat laf cat on touche yu boagaa yéen ñëpp laal leen bant comme on dit laal leen bant bu ko cat dugg Sadio Kaiser magnifique Mané donc blessure ñak blessure également beaucoup na ci li tax beaucoup Bayern bëgg ko jël parce que ñu bëgg attaquant bo xam dafay constant chaque fois donc en tout cas gars yi lii di wane waat humilité Sadio Kay Zawa magnifiquement jital lu xaalis sport la jiital envie envie de jouer le jital lool nek lo xam nak Nagelsmann euh, ak ki di Salihamidzic salué nañ ko gars yi yéen ban gis ki ñeen am ci li nga xam mom la midi wax lan nga gis également ci trophée Karim Benzema Benzema match Sénégal Bolivie bi entre autres woo di like woo di abonné on avance ensemble dans la magie des sportifs yi